आए तेरे Ibrahima Faye Ibrahima Faye oui sama doom baay nga oui dama baay la kay noonu la demee kay foo jógee Palmarin Marin nga jógee Palmarin Palmarin ziar naa la waaw doo la ziar bu bëri waaw tur bi nan la El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye waaw foo jógee Zola laa dëkk ay ca champion maa naa la fay naa la moo la andi Joal man jëli drapeau bi rek yóbbu ko Dionewar yóbbu ko Dionewar waaw waaw na ko

bi neex na trop di ñaan yàlla yàlla may ma ndam ci kattanu yàlla dégg nga. waaw làmb ji neex na de am na ay mbër ñu ngi koy wéy ñu ngi koy tëgg. non non. waaw tey laa bindu poids lool. waaw bu ci yàlla àndee. si kattanu sunu borom. ayca ba léegi ñu ngi ci luur bi. waaw waaw. Toubacouta la fi Lac daan léegi. ñëpp jàpp seen gémmiñ waaw waaw ay waay Joal yëngu na waay tey nee la làmb ji foo sànni mbàttu mu tak cay Toubacouta ngay jooy oo oh. daam lu ko bet xale bi ko daan moo ko jaaxal mais xale bi ko daan mën naa daan ku ne ah dëgg la attention lu xew jëlal ma combat ba lay attention war na ko ndomba les penalty la ke ba ma beneen combat ba ayca oh waaw waaw arbitre ba soufflé waat na génn seen diggante ñoom ñaar ña ngay lewaatoo ña ngay jéem a naxante loolu attention eh kal ko jàpp na tànk ba dara xawagul de dara amagul hey xale na ko daanu nga daanu nga ba defeenu cey loolu waaw waaw waaw kaay ngeen fay Leewtoo TV ah lii de moom dafa naa ni tey la ñaan journée bi dafa ala dawme journée bi neex na te dégg naa demb it nii la meloon donc je pense que c'est une réussite pour pour un début réussite la pour man bàyyi Dakar ñëw Joal lan moo waral mu bàyyi Dakar ñëw Joal parce que bi ñuy njëkk a tëgg làmb 2018 fii lañ njëkkee woon mu jig ñu moo tax tey suñu fi ñu dellu si waat fii pour ñu jigaat ñu ñu mën a continuer suñu saison. maaleykum salaam maa fii say journée kontaan rek. bon lii day wane ni nit ñi namoon nañu làmb parce que làmb c'est l'espoir de chez nous te euh, day wane ni rek état bi dafa war a jàppale làmb parce que. su président di wax 350 milliards pour la jeunesse yaakaar ne làmb moo ci war a njëkk a jël euh, wàll wàllam moo tax journée tey bi ak journée yi nga xam ne ñoo fi jàll comme démb ak ki démb vraiment kontaan nañ ci trop vraiment. Paptalis. non Paptalis moom nekkat àndatuñu en tant que promoteur ak euh, mbër wala manager mais partenaire lañu actuellement ndax Paptalis mu mu dugg see li mu njëkk a def euh, mooy tëgg six combats. yoo xam ne ba pare décentraliser yenn combat yi te ñun loolu la ñu soxla woon on a besoin d'un promoteur boo xam ni day promouvoir nit ñi ba pare di décentraliser parce que la lutte c'est pas que Dakar rek euh, région itam ci la ñu bokk te loolu yëpp bokk na ci ay innovation yi nga xam ni moom mi ngi koy def kon Pape Thialis ñun dañ koy ñaanal yàlla mu gën a am doole et puis gën ko jàppale parce que soo ko jàppalee jàppale na làmb. waaw mais neex na peut-être dafa xaw a guddee quand waaw mais c'est ça se passe très bien waaw noo gisee combat Tapha Tine Boy Niang entre. combat Tapha Tine Boy Niang 2. Ah, mais man je donne favori euh, Tapha bu dee wàllum xeex la kan nga yaakaar ne moo ciy mooy bëre mooy. wàllum xeex kan nga yaakaar ne moo ciy ñoom ñaar. Tapha mais bu dee bëre euh, Boy Niang waaw. moo dàq bëre nañ la wax ak keneen salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo gisee journée tey bi. ah. xanaa neex rek. <laughs> waaw waaw. Tapha Tine Boy Niang. na garder tank yi. booy Niang ci tànk yi lay ñëw. bu dee xeex la kan moo mën. Ah, bu mu bu mu topp xeex bi Tapha bu mu topp xeex bi na garder tànk yi man maa man Baye As maa la wax loolu ah. Tapha Tine. na garder tànk yi bu mu topp xeex bi bu ko garder dina am dara mais bu toppee xeex bi booy bi ci tànk yi lay ñëw ah. Boy Niang dafa booy Boy Niang mbër mu teey la mbër mu dal la mbër muy calculer la moom du maye dara te loo ko may mu jël te bu ko bu ko jëlee day am dara. waaleykum salaam. journée tay bi. ah journée bi noonu journée bu neex la journée bu am solo la ndax euh, am nañ fi ay poids lourds gis nañ ko fi ku ci mel ni Toubacouta. gis nañ fi Doudou Sané euh, gis nañ fi Diame euh, euh, Nianing tànk yi am nañ fi El Hadj mu nekk champion dëkk Joal nekk mbër soxee ko ci famille mbër kon kooku champion la am nañ fi ay yeneen lutteurs yoo xamante ni ñu ngi fi ku mel ni Ngaan mu ngi fi nekk champion mbin jon bu Joal mu ngi fi kon journée tey bii am nañ yaakaar na journée bu war a neex la ñuy rafetlu seen teewaay di wax ne euh, danañ ñëw fii di assister làmb lamb am na solo Joal dëkku làmb la dëkk la boo xam ne euh, lamb boo fi tëgg mise boo teg supporters yi dañuy ñëw mbër yi dañuy ñëw euh, amateurs yi dañuy ñëw kon loolu daal moom lañ gis ci lamb tey bii mu nekk làmb boo xam ne làmb bu war a mën a neex la commencé gul nag mais léegi mu commencé quoi. maa ngi lay fay neex kontaan rek am ambiance billaay ah lamb ji neex rek. ñaa Tapha Tine man nag wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp laa faral. <laughs> neex na trop kontaan nañ ci it na moon nañu lii di ñaan yàlla corona bi ñu xañoon lii yàlla na fi gën a jóge namoon nañ lii trop sax. Boy Niang Tapha Tine faral. man maa ngi ci booy Niang Boy Niang laa faral waaw. Ah, waaw. waaw. xaar ko deux minutes. Miss kañ ngay wax. naa maa ngi fi. nga gisee lamb. lamb bi neex na trop. neex na macha allah kontaan nañ trop. neex na trop macha allah. booy ñaata faatin. booy lamb bu neex la. que meilleur gagne rek. ah Tafatine laa faral nag waaw waaye nag ku yàlla jox jeel rek ñu xam ne noonu la waaw di leen ñaanal rek. ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim rek génn si alhamdulilahi rabi alamin comme ñun dañoo bëgg làmb rek benn mu dul dem bàyyi sa morom xanaa di ñaan rek yàlla def jàmm si dëkk bi fépp waaw loolu daal laa am lu ma wax